réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam bañ na na déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar mi bañ na réew mi bañ na déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar réew mi bañ nangu kenn jaay ñu réew mi bañ na déet réew dootuñu fi nangu bu mu jaam réew nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu jaam mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm lii ab ubbi rek la ab introduction ndax bu si kanamee tuuti dinañ leen dégtal waxtaan bi taxoon ñu jox leen rendez-vous ci waxtu wi li andi lii nag mooy diggante ca suba ba ñuy enregistré waxtaan bi ak waxtu wi ñu toll dafa am xibaar yu doy waar yu ñu dab mooy xibaar bi nga xam ne mu ngi xewee fële ci suñuy mbokk yu nekk Ngor ñu ne nag dinañu ubbee waxtaan bi ci loolu gannaaw bu ñu gërëmee sant suñuy nattaango lidéeru yeewi askan wi nga xam ne tey def nañu waxtaan wu am solo waxtaan ak sénégalais yi te jëmale ko ci suñu jëmm daldi di feddale kóllëre ak xaritoo waaye surtout feddale diggante gi nga xam ne moo dox si man ak ñoom ci li nga xam ne gëm-gëm la pas-pas la ak bëgg réew mi la mbokk yi li xew yoof li xew ngor ñun ñëpp ñun ñëpp ko gisandoo muy lu doy waar ab nguur boo xam ne day xëccoog askanam suuf soo xam ne matul sax hectare gën saa bari nee nañ six mille mètres la mu koy xëccook askanam ba mu jar violence bii nga xam ne ñun ñëpp gis nañ ko nguur goo xam ne day xëccook askanam lu tuuti ci suuf gannaaw bi ñu xañee askan woowu suuf su bari soo xam ne seeni maam ak seeni maamaat amoon nañ ko ba tey soo demee Ngor nit ñaa ngi dund ci xat goo xam ne ndax famille yi màgg na yaatu na ñu dagg suuf sépp séddoo ko ak jaay ko ba tey tuuti leen dese woon ñu amoon mbébét def fa ay projet ñu leen loolu du fa amee nguur gu ñàkk yërmande ci askanam ba loolu andi lii nga xam ne Sénégal yépp a ngi koy gis àdduna bi yëpp di ko gis muy dal ci kaw sa population nguur goo xam ne lenn rek la xam diggante ak population bi mooy ku yëngu naa dal ci kawam naa ko tënc naa ko gaañ loolu yépp na ñu teg ko ci force restera à la loi fàtte ni nag force restera à la loi mooy doole day dellusi ci yoon fàtte ni yoon googu nag ñu jox doole yoon googu mooy yoonu askan wi du yoonu Macky Sall du yoonu Antam jom du yoonu général Moussa Fall du yoonu Bokar Yàgg waaye mooy yoonu askan wi mbokk yi ku yërëmul sa askan mënoo ko jëmale kanam lii nag mooy li ñuy xeex bés bu ne ñu jàpp ni diggante Ousmane Sonko ak Macky la waaye nii mu amee tey Ngor amee na noonu fu ne ci réew mi muy dëkku taax yi muy dëkku kaw gi bis bu ne ñu dal ci kaw ay population jaay leen doole amuñu fuñ ko jooytoo te li gën a yéeme ci li xew jamono ji mooy bu yi amee télévision yi Sénégal yi sax ñemetuñu ko wone ndax Macky Sall nee na leen bu leen wone su may noot sama askan bu ko kenn wone moo nem de France bee ñu ne démocratie la bu manifestation yi amee ak ni muy métti yépp télévision publique ak télévision privée yépp dinañ ko wone ba askan wi xam li xew tey bu dul woon réseau sociaux yi ak yenn page Facebook yi sénégalais yi duñu xam li xew ci réew mi mën nañ fa tëj nit ñi gaze leen rey leen te kenn du ko yëg lii mooy li ñuy xeex bés bu nekk waaye nag ñu war cee jàngat lu bari waa ngor dañu wuyu seen tur mooy nit ñu am ngor lañu ngor mooy dignité ku am dignité dinga jaar ci kawam waaye doo ko jaay doole doo ko noot doo ko takk bu mu jàmm may wax waa senegal lan moo tax ñun ñu war a nangu Macky Sall takkuñu bu mu jàmm lan moo war a tax tey ñu koy seetaan muy def lu ko neex ci réew mi Ngor de benn quartier kese la mu tëleen depuis balaa tab balaa korité ba tey jii waa bu quartier senegal yépp takkoon seen fit takk seen ndigg jàkkaarloog Macky Sall gëm naa ni du fi def genn wàllu fan dina takk ay bagages am dem ñii woo nag ñëpp ñu am solidarité ak waa Ngor rawatina ñii seen dëkkandoo di Yoof di Wakaam ba Cambérène waaye feneen ak feneen ci senegal benn sénégalais waratul nangu di toog di seetaan ñuy noot ay sénégalais di leen bunduxatal di leen métital di leen rey di leen gaañ dégg nañu sànq. ab xibaar boo xam ne ñu ngi koy vérifié wu ñu ne ñu am na benn gone gu jigéen gu ci ñàkk bakkanam ñu ngi ñaan yàlla loolu loolu bu mu am ndax nguuru Macky Sall li fi rot ci bakkan bëri na ci ay manifestation kese gis nañu ay image yoo xam ne ju doy waar la ay nit nekk ci ay plage ñu leen di tiire ay bal fetal te balaa korité bi gis nañ fa image yu doy waar ay nit yor ay fetal nekk ci ay yoonu koñ di chargé di tiire ci kër yi mu fàttali leen li xewoon sama kër le 7 février 2021 nga xam ne ay alkaati la ñu gis ñu taxaw ci kaw ay toit di tiire njàmbaar nekkul ci loolu ma koy wax toujours suñu force de défense et de sécurité yi lañ leen formé ñi ngi li ñuy xaar ci yéen mooy bu ay samba booy wala ay terroriste wala ñu bon a bon jóge fële bëgg a dal ci kaw Sénégal yi ngeen won ñu ni yéen a ëpp entraînement ci Sénégal ngeen ñu yéen a gën a professionnel ay jàmbaar ngeen mais bés bu ne ñu yónni leen ci ay population désarmée ngeen di jaay ay commando mel ni Rambo bu nekk ci àllum euh, Asie ba lu lii moo taxoon peuple bi jël impôt di leen fay ak di leen former ngeen war a am yërmande ci seen askan te xam ni doole gi ñu leen dénk doole askan googu la du doole Macky sal kon li xew Ngor métti na ci ñëpp ñu koy massawu ñëpp à l'attention de nos amis étrangers. J'ai ouvert ce, cette allocution par la situation qui prévaut aujourd'hui dans un quartier de Dakar qui s'appelle Ngor. Les images que vous voyez dérouler en boucle derrière moi se rapportent à ce quartier, où depuis plus d'un mois maintenant, des populations réclament un petit lopin de terre de 6000 m carrés des populations qui ont été spoliées de toutes leurs terres ancestrales, qui ont été soumises à la course foncière qui prévoit Dakar, où des lotissements ont été faits, partagés tout le temps par les mêmes, des politiciens, des hauts fonctionnaires, pour être revendus à prix fort. De sorte que ces populations aujourd'hui vivent dans la promiscuité dans leur quartier traditionnel. Et le petit lopin de terre qui leur restait leur est aujourd'hui euh, enlevé pour soi-disant l'édification d'une brigade de gendarmerie, ce qu'il faudrait vérifier d'ailleurs. Et ces populations disent niet. Et la seule réponse que Macky Sall leur sert, c'est encore la répression, la violence et la brigade. Et les images qu'on a vues aujourd'hui, les images qu'on a vues les jours passés, sont indignes d'un État comme le Sénégal. Et Macky usent et abusent de la répression sous le fallacieux prétexte que force doit rester à la loi, ignorant que la loi, c'est le peuple sénégalais. Et ce qui se passe est déplorable. Et c'est cela l'objet de notre combat de tous les jours. C'est ces violences que nous subissons tous les jours. Beaucoup de Sénégalais ou certains Sénégalais ont pu penser que c'est une adversité politique simplement, que ça tourne autour de la conquête du pouvoir. Que nenni, on pour des principes et des idéaux, pour que notre démocratie, pour que nos libertés ne soient pas confisquées par un homme boulimique de pouvoir, entouré de gens qui se sont enrichis sur le dos du Sénégal et des Sénégalais. Et aujourd'hui, nous constatons ce qui se passe encore avec beaucoup d'amertume. Mais l'enseignement qu'on en parce qu'en Wolof, Ngor veut dire dignité. et ces habitants-là répondent bien au nom de leur cité. Parce que désarmés, même désarmés, ils font face à un régime arbitraire et délibérément violent. Nous appelons tous les Sénégalais à se solidariser avec le quartier de Ngor. Et le principal enseignement que j'en tire, c'est que si les Sénégalais se mettent debout, prennent leur courage à deux mains, il n'y a pas de force de répression qui peut les contenir. Et Macky Sall ne passera pas une journée de plus à la tête de ce pays. Si c'est un quartier qui résiste depuis plus d'un mois, imaginez ce que ferait le soulèvement de tous les quartiers pour résister à l'oppression. Et c'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais, et particulièrement les quartiers limitrophes, de Yoff, de Wakam, de Cambérène, tous les quartiers limitrophes, à se solidariser avec nos frères de Yoff. Il nous Nous avons été informés qu'il y aurait eu déjà euh, un mort, par précisément une jeune fille. Nous sommes en train de vérifier l'information et nous souhaiterons qu'il n'en soit pas ainsi. Et ce serait déplorable parce qu'il y a eu trop de vies humaines perdues sous le régime de Macky Sall, abattues lâchement par des forces de défense et de sécurité pendant des manifestations. des dizaines aujourd'hui. Et Macky Sall ne compte pas s'arrêter à si bon chemin. Il faut arrêter cette, ce massacre qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les Sénégalais et à toute la communauté internationale à s'intéresser de très près à ce qui se passe au Sénégal. mbokk yi lii lañu ñu bëggoon a ubbee parce que lu ñu dab la balaa ñuy commencer yéguñu ko woon bi ñuy door enregistrement bi sànq si suba. ñu ngi leen di jox rendez-vous dans quelque minutes le temps que techniciens yi positionné élément bi ngeen mën a déglu li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu seq ak yéen tey asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.